asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi tudd madame Ndeye Codou Ndiaye euh, nekk présidente de la plateforme de la fédération des calebasses les Linguères de l'émergence euh, nekk conseillère technique au ministère des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires dans le cabinet du ministre en même temps dans une nouvelle direction qui s'appelle la coopération décentralisée tey nag solos bis bi mooy fête la femme ñu am mbégte bu rëy bi nga xamante ne ni IEF madame l'inspectrice bu IEF bu Sangalkam porté choix wam mook l'ensemble des membres de la cellule genre ci sama modeste personne wax dëgg yàlla mu nekk mbégte bu rëy rëy rëy wane ni jëmmal nañu jigéen waaye fonk nañu jigéen waaye safoo nañu jigéen Euh, thème mu bis bi nag ñu ngi ko porté woon ci li nga xam ne mooy euh, une formation muy nekk renforcement de capacité renforcement de capacité ci leadership féminin wax dëgg yàlla ñu def ko tamit ci éducation financière defaat ko aussi si l'innovation pour le succès de l'entrepreneuriat féminin loolu di màggal taxawaayu jigéen waaye wane ni jigéen dina contribuer ci développement économique gu réewam waaye dina participer à l'amélioration des conditions de vie ci goxam ci këram ci goxaan yi mu wër Sénégal kon nag wax dëgg yàlla maa ngi sargal suñu lingeeru ñaaw li ñu gunge tey ci mbégte bi nga xam ne lu rëy la ndax nit ki nag euh, bu la joxee cër bu rëy da ngay ñëw nag euh, daal di koy safoo ko di leen ñaanal plein succès ci renforcement bi nga xamante ne def nañ ko tey euh, ñu servir ko démultiplier ko au sein des écoles mais au sein des GPF femmes yi nga xamante ne ni ñoom ñoo jëmmal seen bopp taxawaay nag moo nekkoon rek ñu impliqué femmes yi parce que femmes yi dañu def lu jafe parce que ñoom dañu réussir di mën a am la mobilisation amaat tamit loo xam ne dañ ko def sacerdoce mooy ñu génn di informer jigéen ñi ci lan moo xew ci jamono ak placeu jigéen ci biir këram ci goxam ca lekkool ba ak ci dëkk bi kon loolu bu ñu ko amee li amaat solo mooy tey li ñu def ñu ñëw capacité leen mooy former te tey jigéen ñi taxaw nañ pour yëkkatiwaat seen dignité wane ni ñoom mën nañu dara parce que lii ñu jëmmal tey loo xam ne dafa nekkoon luy nelaw ci ñoom mais estime de soi boobu tey dañu ñëw découvriraat ko développé waat ko kon ginnaaw bu ñu amee loolu autorité territoriale yi li leen wax mooy ñu impliquer les femmes ci lépp loo xam ne dañ koy doxal ci ci structure déconcentrée de l'État waaye rawatina ci ay décisions yu ñuy jël ndax tey jigéen ñi pare nañu pour nekk des femmes décideurs pare nañu pour nekk des femmes entrepreneurs pare nañu pour contribuer ci développement économique du Sénégal surtout ci la développement durable à travers les politiques publiques kon nit ki nag bu wanee ni moom mën na dara li am solo mooy Laxol Kajoor dafay weesalante ndax gën a jege gën a yey soxla nañu jigéen ñi jël place yu ñu moom wax dëgg yàlla imposer nag seen bopp ndax ginnaaw dëggal nañu seen bopp waaye nag ñu imposer seen bopp pour bu ñu leen mayul dara it ñu am dëgër laay taxaw pare pour ensemble mutualiser seeni doole mën a dem foqati lu ñu moom ba retrouver leur honneur. waa li mu mën a jur bëri na li mu mën a jur bëri na parce que li nga wax dafa am solo jigéen ñi dañu sonn ci politique gu sinécure tey ñu taxaw ni ñoom duñu ay sinécurienne li ñuy def sacerdoce la dañ ciy jaamu yàlla mais en même temps dañu valoriser waat jigéen wane ni jigéen suñu borom da ko fonk ba wàcceel ko ay bu tudd suratul nisaay te lu baax jigéen la ku fi falu jigéen ñoo la fal mais elles sont restées en rade ku falu dem ba toog dootoo leen jot dootoo leen gis ñu sonn ci vraiment bu mu njaam googu ngay wax ne daf fi nekk rupture nag moom la ñu gis ne jigéen dañu pare ensemble pour pour pour foncer vers ce succès qui les attend moo tax ñu di def ci renforcement euh, nu mu tudd innovation pour le succès de l'entrepreneuriat féminin ndax dañ ko daan wax rek mais tey jigéen ñi dañu ñëw pour def ko ndax affaire bi du wax nag jëf la te tey jigéen ñi jëfee nañ ko def un pas de géant wax ne duñu bàyyi dina am continuité dina am suivi dina am accompagnement mais dina am assistance te ñun pare nañ pour gunge leen ci loolu parce que seul on va vite mais ensemble on ira plus loin incha allah Euh, te pare nañu nag pare nañu pour mën a foqati suñu place parce que lu ñu war la lu ñu moom la e gëm nañ ko wane ni mën nañu dara tey ñu ñëw bokk ndey bokk baay pour ensemble dans ce mois de la femme avec cette belle journée kontaan nañu bu baax a baax amuñu seen fay ñu leen remercier